man mi nga xamante ne man mi nga xamante ne dama am di liggéey xam naa bu baax ci baax ci baax ci mën a bokk liggéey bu mu am boo boole ñëpp ñu liggéey bu pare ñu def mooy loolu xam naa bu baax yàlla xol lay fay Aziz Sénégal ñëpp ko am Aziz nit dina nekk ak yow doo ko xam bu demee nga xam ko am nañ ci moom yiw am nañ ci moom baax respecté jigéen boo ko oowee mu dugg jigéen xool lay def ak yow Aziz man ay vocal la boo ko déggee fi mu nekk nii mënu ma ko gëm mënu ma ko gëm fi ci jëm yaa ngi ko gën a yaa ngi la yàlla man man Mbaye Seck ak mais mi ngi tëdd ne ay sax ñu fi nga xamante ne mooy kër Abdoul Aziz Dabala ñu toog ak yaayam tey nag lañ ko doon defal euh, ñaanam macha allah di jaalewaat la yaay bu baax a baax di la jaalewaat lu ñu bokk di waxaat Abdou rek yal na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana yaay nuyu naa fay naa maa ngi si jàmm bu baax. masaw bu baax a baax la. ñoo ko bokk Abdou Aziz ñoom ñoo ko bokk ñoo ko bokk. yaa tey gis euh, mbooloo mi yëpp ñëwaat euh, seet si xamante ne mooy Abdoul Aziz Dabala ngir di ko ñaanal. waaw damay ciy békk rek te xam ne nit ki moom ñu ngi toll. donc ñu toll noonu la bés ngi toll. sànq ñu ko ne nit ku baax la euh, nit ku oyof nit la jege woon la. tey bi mu demee tey ba dëddu àdduna tay ba nit ñu ngeen ci am loolu ngeen ci déggee loolu moo am nit ku baax la nit ku bu yaayam bu fonk ay mbokkam waaw bu rafet xol amul sans sans problème amul benn problème ma nga ko yendal fii loolu diggante fii ak fii mën na fee yend mën na fee yend moom bi ba dégg rek ñi defoon jëye ji jàpp nañ leen ban yëgee nga am waaw ko yëg rek xanaa xool bu jeex rek waaw sentir xool bi jeex na waaye xool bi seddaat na waaye ndax ñu ko ja jàppee ah xool sedd na booy def sa catastrophe ba pare jékki-jékki ni def ay recherche ba gis la ah, rek sant sant yàlla sant yàlla rek. mu mel ne da nga wax naan justice la def na liggéeyam ndax ñi nga ñu ngi koy affaire bi amee léegi ñoom ñëpp ñu jóg taxaw ci village saa jàpp jàpp leen def na liggéeyam. waaw ah, def nañ seen liggéey moom def nañ ko def nañ ko. bu mel ne ray yaay ray bi contrôlé. ah ku dee ma wóoru ma nag. waaw ndax nekk ma si seen biir. man maa ngi fii moom nekk ma si seen biir man maa ngi fii. xam nga complot xam nga nekk complot. waaw ku dara wóoru ma ci. Mm-hmm. Mm-hmm. bi nga ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Nabou Leye ak Aziz mm-hmm. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amul problème li ci Nabou mooy ne ci Aziz rek waaw ñoo ko déggee tam ah man jaaxal na ma de jaaxal na ma waaw peut-être kaamir dinaa waat na Nabou bokk ci. waaw bu yoon woon nii bu ko teg caméra dinaa na bu lay wokku ci waaw xëy na seetaan bay doole rek waa li war a am rek mooy am waaye ak Nabou ak Aziz bañ nekk yàgg na léegi ma xanaa am mu am vingt ans yàgg na bañ nekkee xale ba léegi waaw seetaan moo bari doole rek. est ah. na waar daal. Mm-hmm. Mm-hmm. na waar daal. xama xay am na xama amul wax daal doy na waar waa waa kër na waaye jiw ko enterré te ëllëg sa parce que jiw ëllëg sa waaw na fi boobu na bu na fi ñëwoon nañ fi waaw ñëwoon nañ fi ndax soo yaantoo kër yi soo yaantoo mhm, soo yaantoo ndax yaa seen bi mhm. mhm. la loolu ñu ci dégg loolu ñu ci dégg rek waaw loolu ñu ci dégg. mu nekk waa Sénégal ndax ñëpp bokk nañu yow naqar bi ñëpp la jooylee ñëpp ko nit waa Sénégal ak bitim réew ñëpp ko naqar kenn desul ñëpp ko naqar sama Aziz mi ñëpp ko naqar yaa est-ce que déggoo ñu war a dekkal ku rey ku rey ah war nañ koo def kay ku rey ñu rey la waaw peine de mort war nañ koo dekkal waaw mm-hmm. am na benn fee buñ ci dégg ñu nekk def jéeg yi tamit mm, loolu la ñuy wax de. loolu la ñuy wax. Mm. bu ngeen yëgee ah, métti rek métti rek. waaw ah, ku ne sa doom rey nañ ko. defu la weefu mu waxul demul ci guerre demul fenn xeexul ah métti rek métti kese. daa mm. ah, ñu teg ko ci loxo suñu borom ba yàlla. loo xam ne moo réew muñ réew muñ bett surprise la surprise da moom bett na trop trop trop trop bett na netteel la gis xaar ñu ko woon moom xalaat xalaat ko ba di ko xaar sax xalaat ba di ko xaar léegi lan nga bëgg ah def liggéeyam rek waaw lu ñu yoon may rek mu yoon daan def liggéeyam yoon na def liggéeyam rek loolu mooy wax waaw waaw na leer rek na leer rek loolu wax amuñu ko ci na leer rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ok ko rombee cër bi ah ak ak ak taalibe gi Aziz ñëpp la amal jàmm quartier bi muy suñu suñu suñu yaay yi suñu papa yi ah tey képp koo xamante ni am na ñoo xamante ne boo leen dee jël duñ mën a wax tey boo xoolee wàcce kaamil bi koo ci dékk micro muy mag bu la waxee fi mu jaar ak Aziz da nga naan déedéet loolu sax day wane ni Aziz daanaka bi mu demee la ko ñu bari xam parce que man keroog gis naa benn vidéo boo xam ne bi ñu xoolee sàggam ñu ci fekk kurus man mii di wax sama grand bi wax na ko sànq Aziz du faat waxtu Aziz waxtu du ko fa man saa yu toogee bu heure julli jotee barki Mouhamed billaahi danaan ma booy saal ma satale sama kër ñu jàpp julli waaw du faatu waxtu man Aziz ti tiitatuma ko quoi waaw ko affaire bi nag jëlee nañu kaw parce ku ñàkk ku mel ni Aziz dina la jëlee kaw koo xamante ni xam nga tout le temps yéen ay nekk xam nga yaa ma gën a xam Aziz bu amee ci lu baax ñëpp la ko yéene képp artiste buy dox rek Aziz yéene na lu baax. mu mel ni daanaka faat nañ waaye turu Aziz moo dem waaye daanaka yéen personnel bi yëpp boo xoolee daanaka ñàkk ngeen. dëgg la la ñëpp a ñàkk. ki def lii faatul Aziz rek ñun ñëpp la faat. Mhm. famille la faat. parce que man ñun gëm nañu ñun Aziz su amoon ñaar wala mu am ñett dañuy bokk ci ñoom sedd. kon ki def lii ñun la faat mais faatul Aziz. Mhm. waaw métti na trop métti na trop mais ñi ngi sant yàlla. Mhm. parce ñu wàcce kaamil kër gi chaque jour day fees xale yi sax dañoo am lu leen xale yi ci koñ bi sax dañoo am lu leen metti dañoo am lu leen metti billaahi waaw Aziz bi man man ba sama doom sax sama doom bu ndaw bi gën a tuuti wóor na yàlla billaahi bërki démb damay ñëw xamul li xew mais damay ñëw bërki démb muy seetaan clip bu Aziz ci tele bi ni ma papa sama papa Aziz a ngi nii oh. anam billaahi wóor na yàlla mm-hmm. bi may tuur xewal tey ma ko mm-hmm. kon war a xam ne ñu ñoo ñàkk. Mhm. d' accord yéen ñàkk mais tey bu ñu ñëwaatee ci fay donte duñ ci dugg ndax tey amoon mbetteel ci yenn tet yi nga xamante ni euh, euh, daanaka dégg nañ leen ci. bett nañ ma. Mhm. bett nañ ma trop waaw bett nañ ma vraiment li am ni daf ma bett bett na ma trop trop trop trop wax dëgg yàlla. Mhm. parce que foogee ma woon ni loolu dina am quoi. daf ma bett trop. waaw même ku xam ak ku xamul ak ku dégg ak ku déggul ak fu ko waay yëgee dina la bett. dëgg la bi ñëpp la bett. ñëpp la bett. ñëpp la bett parce que man li ma doon wax rek du ma si mës dellu ginnaaw koo daan àndal di màggali Touba ah ay ñaata at ah ren yéen a waroon ànd màggali loolu duma ci dellu ginnaaw parce que nit da ngay wax dëgg Aziz ñoo waroon ànd màggali hmm? ah, te yàlla def lii mu tey lii am tey ah, yàlla dogal ko nag sant yàlla waaw dañ ciy sant yàlla bu baax di ko ñaanal waaw ndax ku bëggoon Serigne Touba la nag waaw ba pare ñu tuddee ko maam Abdou Aziz tabaax Malick kon Aziz sama xel dal na ci moom fa mu nekk ku bëggoon Serigne Touba la. tey lan seen diggante yéen ñaar. waaw li ma mën a fàttaliku moom bari na bari na trop trop trop ma ko wax du ma fi jógee sama diggante ak moom liñ ma si kaf si ree waaw liñ mën a fàttaliku bari na lépp mënuma koo lim. d' accord ñu gis bi mbir mi amee daanaka ñu cité ñu ci bëri daanaka damay wax ni Sénégal léegi moom ku ci nekk procureur nga ku ci nekk daanaka justice la euh, tey ñenn ñi sax ba ci yow sax am na ñoo xam ne jël nañ la taf la Samba keneen keneen tey euh, mu mel ni xeetu ñaawteef yi mel ni bu amee ku nekk da ci profité ñii di ak seen i compte ngir bëgg lu ñu wax tey ñoo tëglu tey ñoo tey ñoo déglu suñu justice ko gënul non yooyu yooyu du ma si tontu ndax xamal tax du ma si tontu parce que euh, Aziz moo toll noonu Aziz moom moo toll noonu ñun am na yu bari yoo xamante ni gis nañ ko ci site internet bi xam nga yaa ma gën a xam ñun yooyu duñ ci tontu waaw parce que yàlla rek ay dëgg te yàlla rek a wóor waaw te xam naa ni justice su Sénégal xarañ nañ waaw kon dañuy sant yàlla sant yàlla rek a ñu war man ñun suñ diggante ak Aziz dara méttiwuñ ñun Aziz mi dem moo ñu metti man laay ñaar Aziz mi dem man moo ma naqari mais du leneen waaw sama digganteek ak laay xool moom mi dem moo ma metti mais du dara waaw ndax yàlla rek a wóor ah te yàlla am na te ku gëm yàlla am yàlla téye yàlla ñàkkoo dara dëgg kon yàlla na yàlla di gën di leeral yàlla nañu yàlla defal jàmm waa Aziz fa mu nekk man tiitatuma ci moom gëm naa ni ma nga àjjana ndax li tax ma wax ko doon naa toog moom am na yu bari yoo xam te ne doon naa ko seetaan ci yërmande gi mu am ci xale yi Aziz bu ñëwee ci koñ bi sax dina yëkkati xaalisam xale bu mu romb boo jooytoo dara mu yëkkati ni la am ak lim dund ak waajuram Aziz même barki Seydina Mouhamed papam ji génn àdduna toog naa mu koy ñaanal billaahi da koy ñaanal papaam da koy ñaanal toog naa mu toog papaam di ko ñaanal bay jooy Aziz ak ajuma mi ngi si mi ngi si bàmmeelu papaam di ko defar di toppatoo ah, kon boo amee ñaanu waajur am barke baay kon lan la ah ah Aziz ñun tiitalutuñ ko dara ah ko ñaanal. fa mu nekk ah suuf ci koom yàlla yërëm ko ah ko àjjana bi ñi nga xam ne njort nañ ne ñoo def jéey bi dëkk fii si def si Naboulaye ak nga xam ne mooy SNU Sarr ñu ne ñooñu dañoo jege loolu ak kenn non loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla ñun bi ñu ko déggee metti nañu trop mais lépp rek dañuy bàyyi justice waaw lépp dañuy bàyyi yoon yoon def liggéeyam. ñun loolu mënuñ see sori parce que justice dafa am yoon am na nañ bàyyi yoon rek mu def liggéeyam waaw loolu rek la ñuy ñaan quoi vraiment. baax na maa ngi lay jaajëfal. sax nañ ko bàyyi mu reposer en paix. lépp lu waay di wax ci moom xamal ne incha allah di nga ko fekkee doomu aadama la dafa metti yaayam di dégg ay wax yu metti yaayam li ko li muy dund rek doy doy na donc suñ ko booleelee leneen ci doomam day gën a metti. allah kulli aal mel ni affaire diggante Nabou Leye moo tax ngay wax de maa ngi dégg nga wax xarit dafa kenn wóoratul kenn affaire yooyu. ay non man du ma du ma wax ci loolu. parce que li may li ma tax a jóg tey moo jébbal euh, sama njaal Aziz ndax tey ji média bi gis na àddina gis na dafa mel ni tey élection lañ doon dem ñëpp taxaw di xam fan la réalité euh, fan la euh, justice di jëm justice nag fi mu jëm woolu nañ ko suñu justice réew xarañ nañu am nañu macha allah Pastef ku leen déglu rek xam ne ne dëgg-dëgg li ñuy liggéey xam nañ ko justice rek moo mën a juger ñi nga xam ne tey euh, ñi ngi euh, teg nañ leen loxo mais man li may jugé sama morom mu jullit ak euh, ki nga xam ne ne amoon na cofeel ci man ma nekk secretaire général am association moo ma tax a ñëw tey euh, moo tax ñu jébbal euh, li nga xam ne ne mooy njaal bi man Pa Moussa président ak ñoom ñi nga xam ne tam teewoon nañ fi parce que c'est normal ñoom ñu jiituñu fi ndax ñun Touba lañ nekkoon kon nag ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla na xippee aljana di wax nañu gën a respecté waat artistes yi te xam ne ne ñoom ñoo leen di bégal dëgg la ku ci nekk yàlla mu ngi lay jox ci li ngay yëngu ci sa sutura nañ leen respecté parce que bu ñu defee lii dañuy vexé artistes mm. i soirée muy Wally Seck muy ñoom Fall dëgg-dëgg ay Tarba Mbaye ñi nga xam ne ne bëggoon nañ ko euh, ànd ak moom euh, di ko dooleel euh, Coumba Gawlo ñu ngi koy remercier de passage ndax def na loo xam ne ne kulli ndaanaan tamit waroon na ko def waaye defal na ko porteur de voix yëpp ñi nga xam ne ne ay artistes yi te Aziz jot na contribuer wu ci seen liggéey macha allah ba gis nga tout récemment clip yi nga xam ne moo doon xew yëpp ci jamono Aziz moo ko doon joué kon Aziz amoon na talent yàlla defoon na ci moom mu respecté ay magam valoriser ñu xam ñun ñooy kan tarbiyu nañu kon nag yal na koy yàlla suturaal euh, ni muy suturaalee dugub mu xippee aljana jërë ngeen umi balaa ñu la bàyyi nga dem ndax da ngay d'accord peine de mort ku ñu rey la ndax da ngay d'accord si loolu euh, bàyyi naa justice def liggéeyam nga ñëw tey jaale si sa doom ndax ku ne xam ne ni nga meloon ak Aziz sa frère la woon waaye sa doom la woon bi nga tàbbee tey ci bis bi muy huitième jour asamaan si ni mu niisee moo lay wan ne Aziz borom la loo yëgal. waaw sant yàlla rek jëlu ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur euh, di jaale Sénégal lañu ñu koy jaale ak monde entier di jaale nag rawatina waa Pikine parce que ñun bu ñu nekkee ci banlieue bi lu dal ci seen kaw rek daf ñuy daal di dal suñu kaw tàmmuma nag sax may wax ci lu demee nii. mais daf du du du ñàkk baal ma ñu ngi noos la mën naa xaar bañ na du ba pare ngi jéglu jërëjëf kon noonu Mame Bassim Thiam euh, ñu bokkoon ak Aziz liggéey bi ndeysaan Aziz bàyyi koo fi nag ñoom ñëpp ñoo indi seen njaal ci famille Aziz ñu koy ñaanal yàlla xaral ko àjjana fi daw ma ma kaay ñëw Aziz ne va pas bientôt, Mario.